umplewu leen ne dëkk bu sell bii di Touba dëkku xéewal la ak teraanga waaw ku wax lu jëm ci wàllu teraanga wax lu jëm ci courant ak ndox ba tax na am na ñaari entreprise yu am solo yu leen ci indil ay xéewal ci biir dëkk bu sell biri di ak li ko wër entreprise Touba électricité générale solaire waaw di kër gi leen di jaay ak ji leen yombalal lépp lu jëm ci wàllu solaire ba noppi nag monteel leen ko moo xam muy solaire industriel wala domestique muy seeni kër ak lépp lu jëm ci seeni dëkkuwaay wala barabu liggéeyukaay ba ci sax seeni forage waaw kër gi amuñ ci moroom lépp lu jëm ci fànn googu daañu ko jaay ay njëg yu xéewale ba noppi boole la ak suñuy technicien ñu monteel la ko bu dee lu jëm ci wàllu ndox moom amuñ ci moroom ak Sénégal au pire waaw ñoo leen indil ay machine yuy filtre ndox mi ci ay capacité yu wuute am na ay machines yuy filtre cinquante litres par ba ci mille litres par heure boo ci bëgg am na fi su ngeen bëggee filtre seeni robinet wala seeni teen waaw yéen ñi nga xam ne yéen a yëngu ci njaayum eau minérale wala njaayum boisson muy jus waaw ay machines yu exceptionnel la leen jagleel dalal jàmm ci euh, quartier général wala exposition bi nga xam ne moom la Touba ca kanam di def muy première Touba ca kanam bi mu sosoog léegi mi ngi doog def lu mel nii kon boo déplacé woo ñëw seet si Touba ca kanam ci njiital Serigne Abibou <coughs> Touba ca kanam bi dina ci am mbégte sant la ci tànk yooyu gërëm la ci teew gi nga teew fii dinañ amaat mbégte tamit ci leerale la liggéey bi nga xam ne Touba ci kanam mi ngi koy def ngir wàccuwaay wi nga xam ne moom la yàlla dogal nga am ko ci réew mi boo xamee liggéeyu Touba ca kanam boobu dina tax Touba ca kanam mën a jaare ci ci yow ak ci li nga xam ne moom la la président de la république dénk ngir lépp loo xam ne mën nga koo jàppalanteeg ñoom ci li ñuy def te lépp delluwaat ci liggéeyal Serigne Touba ci Touba te mu mel ne bi ngay ñëw léegi Serigne bu daf ne ministre Abdou Karim nag mi ngi fiy ñëw waaye dafiy ñëw en tant que mbokkum taalibe muy ñëw di seet si liggéeyu Touba ca kanam fa yéene ci bi bokk ci dafa mel ne loolu la ñuy wax léegi kon loolu ñoo ngi ciy sant yàlla bu baax di la ci jaajëfal ndax it Touba kanam moom loolu rek la bëgg mooy bu ñu sañoon li ñu bëgg te mooy fexe ba am 2 millions de murit weer wu dee kenn ku nekk joxe ñaar téeméer ñu liggéey liggéeyale ko sëriñ bi ci dëkk bi kon jamono bu ci nekk rek jamono bu nekk rek ku dolliku mbégte lay doon ndax dañuy xam ne ñi ngi dox jëm ci fi ñu jëm objectif bi ñuy visé ñi ngi dox jëm ci te bu ci yàlla bu ci yàlla àndee balaa yàgg dinañ ci àgg kon sëñ bi ñoo ngi lay sant bu baax di la gërëm di la wax bismillah ci Touba ca kanam bismillah ci liggéey sëriñ Touba bismillah ci takktoo boole doole yi ngir xam nañ ne loolu rek moo mën a saafara li ñu bëgg te loolu mooy di Serigne Touba jàngale woon Serigne bi moom am jàngale woon dëgg-dëggim jàngaleem mooy bu kenn taxaw di xaar kenn ci lenn lu mu doon rek nañu jàpp ne ñoo ko war a defal suñu bopp te bu ñu takku daan nañ ko mënal suñu bopp kon kàddu yi foofu rek lañ koy wàcce di di di di sant bu baax a baax. waaw sëriñ bi mi ngi fàttali bi ñuy def reboisement bi. ci diggante Mbàkke Touba dugg ci loo xam ne ba tey xëy na am na ci wàllu urbanisme lay bokk euh, nga yónnee woon fi ay garab garab yooyu filmé woon nañ ko wane woon nañ ko waxoon nañ ko mbokki taalibe yëpp ba ñëpp xam ne ci liggéey bu am solo boobu ci yow la bàyyi ko woon ñoo ngi koy fàttaliwaat dellu di la ci santaat bu baax di la ci gërëm kon di sëriñ bi di wàccee foofu kàddu yi ndax xëy na dafa xaw a gudd da xam bi ngay ñëw fekk na lu bari ci kàddu yi jàll. sëñ bi waxaat ne nañ yëkkati kàddu rek ngir sant la bu baax ci teewaay bi jaajëfal la wasalaamaaleykum wa rahmatullah mooy jëme Tuuba ca kanam yow ñaari million rek tax laay ca leen murit looy xaar ci bokk yow murit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 di leen siyaare ci bés bu tedd bi ci weer bu tedd bi ci ñun murit di jiital di nuyu bi ci di jiital ci nuyoo bi sëñ Abibu sëñ Fàllu ak mbokkam yi mu fi àndal sëñ tàkkoo mi ñu ma nuyale léegi sëñ Laat Abibu mi nga xam ne yàgg nañoo fekkante ci kër sëñ Moustapha Abdou Khadre ak mbokk yu baax yi fi teew yépp di leen siyaare yéen ñi nga xam ne yéen a yor kuréel bi ñuy wax tuubaa ca kanam Touba ca kanam nag balaa ma ci egg si damay wax rek li ma doon nettali sëñ bi sànq ne dama am mbokk taalibe bu baax bu tudd Talla Gueye nekk jëwriñu sëñ Moustapha bu xaaj at mu jot rek dana jaar sama kër euh, andi ticket yi rek dama damaa jël ci cotisation ko defee ñu dagg waa kër gi yëpp jox ko te boobu ba léegi mosuma xam sëñ bu nii la ci demee xam naa sax bëggul ko wax waaye ñu ngi daje màggalu Daaru Xudóos ma koy tooñ nar ko waa sëñ bi Touba ca kanam moom lan nga ci doon ak nangam ak nangam mu sëgg rek def ni mu def ci téere bi ci lay door a xam ne mën na am lu ci bëri ci moom la ko sëñ bi jaarale ñu ngi leen di sant ci initiative bii nga xam ne lu am solo la ci réew mi ndaxte damay bi ma toogee ba léegi maa ngi xool mbind yi euh, naatal tuubaa ndoxu taw yi leeral tuubaa njàng mi euh, waaw ndoxum Touba dimbalante wér-gu-yaram ak setal Touba daanaka waaw daanaka loolu boo ko defee ci réew rek dara desatu ci te sëñ bi jamono ji réew yi li ñuy gënantee du am pétrole ak am nangam ak am nangam déedéet li ñuy gën a lantee mooy li ñuy wax développement durable développement durable mooy nekkin bu sax nekkin bu sax noo koy amee mooy aar sa environnement fexe nit ñi di jàng di xam fexe nit ñi di am wér-gu-yaram fexe dëkkuwaay bi set fexe ba booy leeral dëkk bi it nga leeralee ko ci noo xam ne ci solaire lay jógee mooy li ñuy wax énergie renouvelable ak def ay gàncax ba nga xam ne climat bi du gaañ nit ñi loolu nag dafa mel ni sëñ bi yàgg na koo xam ba tax lii ma gis ngeen def ko muy seen bàkk wajal ilaahi maskani tuba abat mislasmiha bi jaayi xayri man abat bi ne ci matlabul fawzeyni loolu nag ñu leen ci sant bu baax a baax a baax ndaxte man yàlla dafa def programme yi ñu ma dénk dafa làmboog li ngeen di liggéey euh, président Macky Sall bi ñu koy falaat mille 2019 dafa am loo xam ne moom rek moo ko génne woon ci candidat yi mooy seetlu bu mu def ne réew mi mel na ni bés bu ne nee nañ li muy perte ci ay garab toll na ni ñeent fukk ci ay terrain football maanaam terrain football bu ne rek boo ko jàppee ñaari hectare boo seetloo buñ la nee ñeent fukk ci terrain football dafa mel ni danga ne rek quatre-vingts hectares ci ay garab ci ay gàncax la Sénégal di perte loolu nag ñi mel ni yéen xam ko teel ko ràññee di ci dox di ci wax ba tax ngeen di def loolu ngeen di def muy reboisement wu Touba ak yeneen ak yeneen leneen li it mooy solidarité ak nangu développement ndaxte nag dëkk yi nga gis yëpp ci àdduna bi même dëkku tubaab yi bëri na loo xam ne xaaratuñ ci état xaaratuñ ci état boo demee ci dëkk yi gën a mag ci àdduna bi communauté yi association yi ku ci ne da xool li manqué te li nga xam ne mën na am état mënagu ko def wala état àggagu ci ñun nag bu weesoo li ñu doon ay sénégalais dañu doon ay murit te am lu sëñ Tuubaa namm ci dëkkam te ñuy xëccoo mën naa am yiw wala bëgg cee barkeelu looloo tax lii ngeen def mu doon lu am solo loo xamante ne Sénégal yëpp war nañ ko jàng dëkk bu ne organisé wu ba nga xam ne ndox daf fay gën a yomb assainissement gën fa yomb wér wérgu yaram gën fa yomb njàng gën fa yomb donc loolu moom mooy pas-pas bi nga xamante ne am na bi ñu yónnee ñetti téeméeri garab yi nga xam ne sëñ bi moom lañ barkeeloo woon ci liggéey bi bi ñu ko waxee président de la république dafa ne ah loolu kat dëppoo nag man li ma bëgg ba créer agence de reforestation du Sénégal dénk ko kooku ñuy wax Ali daar boo leen ko seetloo démb ci télé bi la service nga xam ne président dafa ne rek ni ñu defoon ba am ay agence de sécu ay agent de sécurité de proximité nañ fexe ba am ay agent yoo xamante ne loolu rek la ñuy toppatoo commune bu ne ñu def fa ñoo xam ne dañuy wër rek di saxal garab yi di leen toppatoo te bokk na ci li nga xam ne nee nañ àdduna bu doon tas ëllëg bokk na ci li koy tas suuf ak mbiru gàncax dem nañ ba am na dëkk yoo xam ne dañuy luye ji suuf ngir am euh, Euh, ay pepp yu ñu mën a yóbbu seen dëkk fi mu ne nii boo demee Qatar ak yooyu dañuy dem ay Australie ak yeneen dëkk di fa loué ay suuf ngir di fa bay di yóbbu seen dëkk waxatuma ak am gàncax yu mel nii. donc lii moom pas-pas bu mag la te di leen wax ne ministère bi nga xam ne moom lañ yor bëgg na ci ànd ak yéen ndaxte luy defar Touba luy defar Sénégal la te ñaareel ba dafa doon exemple boo xam ne dañ ko war a wane fépp bi ñu ko waxee président dafa ne nañ leen yokkal junni ci ay garab bëggoon nañ ko andi ci màggal gi waaye dañ doon ragal xat organisation ba mu ne nañ ko jàllale ba jox ci yeneen dëkku diine yi ku ci ne roy lii nga xam ne moom la Touba ca kanam di def leneen li tamit mooy mbiru mbalit yi mbalit bi euh, maa ngi ci waxtaan ak waa UCG rek balaa màggal bi jàpp naa ne problème mu matériel am na waaye bëri na loo xam ne problème mu sensibilisation maanaam yaraat nit ñi ci nit ñi def ak mbalit yi boo demee ci dëkku tubaab bi sànq rek maa ngi koy wax sëñ Abibu nee naa ko soññe yi tuubaa ca kanam di def di def yenn saa yi dama ciy tombe ci YouTube am na ci koo xam ne dafay taxaw ci digg tali bi Europe naan ñii nga xam ne du ñuy jullit gis ngeen seen mbedd yi ni ñu mel ni mu setee ni mu rafetee ndax loolu daf ñoo jomb dama koy wax sama service yi ne leen tubaab yi ni ñuy takkee seen i mbalit ba mu jekk taxaw ci buntu kër gi dugal ko ci poubelle xaar ba waxtu oto bi ñëw ñu doon ko génne ndax ñun daf ñoo jomb waaye dama jàpp ne ci suñu réew mi dañ ko leeralul nit ñi ndax du suñu aada te loolu nag bëgg naa ñu liggéey ci bëgg naa Touba doon ci dëkk yi nga xam ne ñoo njëkk ci loolu maanaam waa UCG di leen wax ban waxtu la camion mbalit yi di ñëw nit ñi ñu def ay campagne de sensibilisation yu mel noonu wax leen ne mbalit nii lañ koy fase ci biir kër waxtu sàngam lañ ko war a génnee ndaxte nit ñi ku leen yee rek ñu yeewu loolu daal mooy kàddu yi ma bëggoon euh, sànni ko fi bi sant ci bu baax a baax a baax te xam ne lii ngeen def moom xam naa dugg na rek ci Touba li abdin mouridin saadihin Euh, moo bi xidmatil aw bi xubil aw haadiyaati xam naa ne diggante liggéey ak bëgg bi nga xam ne moo tënku ci bi xidmatil ak aw bi xubil moom yàlla def na ko fi nañu ñaan yàlla mu boole ñu ci passeef boobu ba nga xam ne dinañ ànd ci liggéey bi ba nga xam ne daal lépp loo leen ciy liggéey yëkkati rek boo leen ñu ko waxee ci ministère bi lu ñu ci am mu rëy mu ndaw dinañ ko ci def barkeeloo ko ci ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax te di leen indil cant ak euh, encouragement président de la république asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërëjëf. sëñ Abdoulaye Mbacke Abibou maa ngi lay sant bu baax ci question bi nga ma laaj euh, mbalit moom dafa doon loo xam ne niñ koy yoree ci Sénégal euh, fépp la lompoñ fépp la dese bu baax a baax a baax man mi jiite ñu yor mbalitu Sénégal yi nag maa koy wax ndaxte dafa di dëkk boo gisee président ñëw ne programme zéro déchet. dafa am loo xam ne dafa manqué Sénégal maanaam indépendance ba léegi fi ñu toll mooy tonni mbalit dem tuuri te tonni mbalit dem tuuri fi nga koy tuur dana fees a fees a fees ba li ngay mujj mooy gas di ko suul boo ko suulee mu dem ba ci nappe phréatique bi maanaam fi ndox mi ne ba ndox mi kenn du ko mën euh, jëriñoo wala yawzu billah loolu mooy foofu lañ toll li nga xam ne nag moom lañ jublu mooy géro zéro déchet boobu li mu wax mooy ñaar d'abord amélioration du cadre de vie maanaam képp fa nga ne nañu yar nit ñi ci seetal seen dëkk ak xam nuñ koy seetalee maanaam yar nit ñi ci bañ a sànni plastique ci mbedd mi yar nit ñi ci naka la ñuy defaree seen mbalit balaa ñu koy sànni euh, fépp foo xam ne rek gàncax mën na fa ne wala pavage mën na fa ne fexe ba nit ñi bu ñu tabaxee bañ a sotti seen mbalit bañ sotti seen i gravats de chantier ak suuf yeeg yu demee noonu leneen li nag mooy mbalit mi niñ koy lijjantee mooy li nga wax noonu ci ndakaarook ñëpp ci yem Sénégal dafa mel ni ñaari décharge yu mag wala ñett lañ fi am muy mbëbës boobu nga gis ak yenn yu ndaw ndawaan yi nañ ci dëkk yi moo tax boo génnee ngay gis mbalit boobu yëpp li nga xam ne nag euh, zéro déchet loolu la andi mooy li ñuy wax PROMOGET programme de modernisation des déchets du Sénégal programme boobu dafa prévoir sept zones ci Sénégal juróom-ñaari zone mbenn bi Ndakaaru la après lu mel ni Thiès Louga ak Ndar defe naa ñoom lañ Diourbel am bosu boppam Kaolack am bosu boppam ci suuf boo ko dajalee loolu yëpp muy sept zone lu ko jiitu sax seetlu ngeen ne banque islamique de développement dëkku diine yëpp tàmbale na fa tabax li ñu wax CIVD centre intégré de valorisation des déchets loolu mooy lan mooy dañoo bëgg léegi ñu bañ a yem rek ci tonni sànni euh, dëkk bu nekk dañu lay defaral benn usine boo xamante ne mbalit bu bu egsee dañ koy tas lii plastique te ñu mën ci defaraat énergie wala ñu mën ci defaraat ay butéel ñu génne ko lii këyit lii butéel nangam li nga xam ne nag kenn mënu cee def dara ñu jël ko sànni ko def ko ci see ci euh, centre d'enfouissement yooyu nga xamante ne moom mooy moom moo koy denc ba nga xamante ne du yàq environnement du yàq loolu. programme boobu nag moom lañ tëral waaye programme bi lu mu tuuti dina jël juróomi at looloo tax président soññaat ñu ne ñu balaa boobu am na ci lu digg dóomu lu ne ci diggante bi maanaam dëkk yu mag yi ñu fexe ba wutal leen. benn centre maanaam décharge boo xamante ne dañ koy tabax ba pare imperméabiliser ko maanaam lal ci lu mel ni mbuus boo xam ne euh, li bon ci mbalit mooy li nga xam ne ndox mi ciy génn ñu koy wax lessiviate nga xam ne mooy yàq suuf si mu bañ a àgg ci suuf foofu lañ ci toll léegi nag loolu bu ñëwee CIVD yooyu day ànd ak oto ya muy àndal ànd ak euh, machine yi muy àndal am tamit maanaam bu fekkee lu mel ni tuubaa penc yi fi am yëpp mën na am da ci am fu ne foo xam ne rek dañ fay sotti mbalit ñu door ko fa jëlee door ko yóbbuwaat mooy diggante PRN yeeg li nga xamante ne moom la ñuy wax euh, CIVD lu lu kii la lu lu rëy la lu am solo la waaye day laaj sensibilisation bu bëri te looloo tax association yu mel nii tubaa ca kanam baax ci ndaxte am na loo xam ne état rek mënu ko mën nga téye télé bi di wax di di soññ nit ñi di wax ku ne nga jël ko jël woykat yeeg jël lu ne nga wax te du tax nit ñi dégg leen waaye yéen pas-pas bi ngeen di doxee kilifa yu baax yi ngeen àndal ku ci ne bu jëlee parole soññ nit ñi fàttali leen ne. Euh, annazafatu min al iman set ci lislaam la wax dina tax nit ñi gën ci gën ci farlu gën ci def leen war liggéey boobu tàmbalee dinañ dem ci dëkk yëpp surtout dëkk yi mel ni Touba nga xam ne wax dëgg yàlla euh, euh, yàlla def na ne mën naa am mbooloo mu bëree fi ne dina tax ñu teel leen ci yee waaye daal li nga xam ne mën nañ ko jàpp gannaaw machine yi lépp mbalit li ko yor mooy pas-pas ak organisation faaw ñu organiser nit ñi gënaat leen yee ci naka la ñuy yoree mbalit ban wax su nga koy def mbalit dañ ko war a segg waroo boole li tooy ak li wow maanaam plastique kenn du ko boole euh, ay butéel ak yu demee noonu loolu daal laa ci bëggoon wax bu ko defee ñu ñaanal ñu bu ko defee buñ ci àggee sëñ bi maa ngi diglu ci guddee ndax euh, ci kilifa yu nekkoon damaa bëgg delluwaat Dakar ndax suba dañuy am conseil des ministres ma dellu si waat image bi jërëjëf. ko wër dernier bâtiment plus import export ñii de mbokk jàpp naa ni lépp loo soxla si wàllu matériaux de construction boo fi accès yi sa jaaxle jeex ndaxte nag seen ay matériaux dafa efficace boole ceeg rafet ñëpp tàmm ko xoolal ma lii si ay carreaux si mboolem xeetu catégorie ak diversité ah batiment plus import export wàllub sanitaire kenn du la ko nettali duggal xool boo ñëwee yéemu wàllub lumière moom seen yëf la peinture yamuñu si ak ñenn peinture bu ngeen mën ci bëgg ngir